sama xalaat si réew mi daal ay kàddu yu teggu nag yooyu c'est pas intéressant parce que li am solo mooy réew moom dañ koy teg si ay yar daal parce que euh, àdduna sun borom sun borom bi mu koy wàccee dafa programme ñi nga xam ne ñoo ko war a jiite dañu war a joxe bon exemple du ma jox toor Moustapha Sylo du ma jox toor ñi muy waxal mais l'essentiel que nit moom du tëb tëb wax rek te amul tax mu wax xañ na kon am na lu tax mu génn wax la mu wax bu fekkee moo ko wax bu fekkee moo ko wax kon am na lu tax mu wax ko ña def la tax mu wax ko ñooñu dañ leen war a moom miir li mu wax bu fekkee wax na lu war tax dañ ko war a reproché loolu moo ci sama point de ah, sama xalaat ci loolu moom du ma ko rafetlu ndax réew mi ñëpp ko bokk benn bopp la boo xam mu ñu ko xar séddoo ko ñu wóolu ni teg ko ca bopp ba muy président Macky Sall kookee nag moom loo am rek dañ naan moom la ndax kër lu fa yëngu ah bu dee jàmm. borom kër ga daan moo jàmmal booy lan la daan borom kër moo seetaan lu dëgg te man sama gis gi wurtu seetaan loolu. boo xam ne a doxee surtout dëkk bi ñu nekk bi am xam ne yu bëri da a daw parce que kilifa daa war a joxe de bon ngi dem ba nit ñi di koy dégg surtout wax ju ñaaw amul njëriñ daal kilifa boo nekk kilifa da nga def waxi kilifa def yëfi kilifa nit ñi mën a basé wu si yow mën a roy si yow parce que am na yu bëri yoo xam ne ñaa ngi koy def si dëkk mais ñun daal rafetlu wuñ ko ndax buñ sañoon ñu wax dëgg yàlla ñu ñu ci yoon bu baax di wax waxi yiw su boobaa ñun ndaw ñi ñu mën a roy ci ñoom waa lool daal lan gën a yittewoo waaye di waxante lu bon ak lu ñaaw moom wax dëgg yàlla rafetlu wuñ ko. jaaduwut moom rafetul te ku mel ne kilifa yi ne ci dëkk bi euh, politique jiite askan wi. war noo war nañoo wax leen loo xam si nii rafet loolu lu gën a rafet loolu daal jékkut jaaduwut wax dëgg yàlla mais nag ka njëkk a wax ak i mujj a wax waxulu ja waxulu def rafet yàq dërëm Macky moom mi jiite mi lépp daal wax dëgg yàlla wax moom ndax ay ay ay nitam nekk koo xam ne mënoo maîtriser bopp di taxaw di saaga na yoo xam ne war maîtriser maîtriser woo ko kilifa da boo nekkee kilifa bañ tegle yéen am na yu bëri war a daw parce que buñu demee ba nit ñi yaakaar si yow bi nekkee si rek war naa tax yu bëri xam ne boo ko waroon def tamit nga xool bañ koo def lu ji njaaga mooy njaag man laa gis lu ji njaaga président mooy njàkk ndax lii avant muy am nuyoo woon na ndax dañ ne lu feeñ cib sëy nuyoo woon na ca ngoro ga dañ ko fayut te lii lépp mu ngi doon ruuma daal di ñëw ñu koy xool di ko gis sa devant Sénégal tout le Sénégal ñëpp ngi doon gis lu mel nii ne dina ma saami mais nag dañ ko war na taxaw xool ko faj ko faj góomb aw mi si fii man loolu laa gis góomb dañ ko war na faj bu baax a baax avant Sénégal yi du ci jot ndax waxtaanu biir néeg la woon avant tout d'abord. loolu ku ko def ku ne dañ a teg ay daan amul député amul maire amul ministre amul dara ku ko def ku ne dañ a teg ay yëkkati ay daan teg ko si yow waaw parce que taxaw di wax lu neex moom tegul fenn du yëfu nit du yëfi kenn du yëfi gor. bu ma sañoon nag comme ni ñuy def euh, ñeneen ñu leen ko def teg leen ay daan wan na ne boo ëllëgee kenn dootu ko fi def waaw wala ndax ñoom ëllëg ñoo taxawaat di ñëwaat di laaj waat réew mi léegi ñoom bu leen joxee réew mi bu boobaa tamit duñ ko rafetlu ndax euh, boobaa mooy loolu waaw defee loolu ñi daanal am na ñu bëri ñoo xam ne nopp seen ginnaaw bu ñemee def yeneen duñ ko nangoo def buñ ko defee lii moo leen si fekk ëllëg loolu moo tax loolu looy tax damay dénk Sénégalais yëpp surtout le président Macky Sall ñu jéem a seet nu ñu def ba jikko defal jikkoy doomu aadama yi commencé ko ci kaw nag waa ci suuf parce que nit ñi mënuñu leen defar li fekk ñu jiitu tegewuñ ci yoon ba pare nañ teg lépp si yoon ñëpp di see ñu waxtaan xam nan la ñuy def pour encore future euh, génération yi ñëw bu ndikkee réew mi mën a tege ci aw yoon mais nekk fi affaire politique ak Covid bi ñu nekk ak problème yooyu yooyu yëpp moom daal nekk lu intéressant li intéressant ñëpp nañ bàyyi seen xel ci ne adduna moom jeex na ba kon li des mooy jéem a delloo si xel yi liggéey te Sénégal tax jaamu yàlla li fi des mooy loolu rek moo fi des daal waaw delloo si xel yi liggéey te jaamu yàlla dafa si yéene seet nuñ def ba juboo yor réew mi doxal ko ci yoon te tam bañ a am kumba am ndey ak kumba amul ndey. ma wax kàddu yu may wax non man Macky Sall lay wax sax parce que ci wax ji. ndax Moustapha Cissé Lo mi nitam la xaritam la magam la ànd nañ ci politique lu bëree bëri bëri bëri pour man Macky Sall na woo Moustapha Cissé Lo ñu waxtaan pencoo jàmm wax jàmm bu nu waxtaanee dem nañ jubóo réeraloo rek Moustapha Cissé Lo waxe mer dafa mer rek wax mais lii gënalu ko bi mu waxee ci sensé ko gis ne ko Cissé lii nga wax da ko rëccu mais ku mer ku ne noppee muus moo ko dal mais Macky Sall na woo Moustapha Cissé Lo waxtaan ak moom parce que xam na ne parti bii nii nii nii nekkun kun ci war a dàq ndax moom da ko fondé ànd ak moom xeex ba gañe nguur gi ci ñëpp fekke ko kon dàq ko moom du xalaat rafetlu ma ko lu ma ñaawlu la te bala bu dàq mun ta ñàkk itam yaa xam mbay ak waa jooju noonu ñaan farba farba naa ne ngom farba ngom xaw ma kooku ñooñu ñoo gën a yeeyoo dàq ci ci ci Macky ci Moustapha Cissé Lo ndax ñoom bi mu neexee leen ñëw bi mu naqaree moo fi nekkoon kon dàq ko xel waru ko nangu franchement Moustapha Cissé Lo na ko Macky Sall woo ñu waxtaan xam ne ne mer la rek mer moom ku mer noppee muus loolu laa moom ci lu may wax